yi ñëwoon fii tey ci Louga ànd ak suñu natango yi yor wàllu transport muy le ministre Mansour Faye waaye tamit ànd ak le ministre Samba Ndiobène mi yore wàllu ndimbalante mi ci biir gouvernement bi bi ñuy ñëw ministre de la santé boole nañu ak directeur de cabinet am ak ay directeur am yu bari ñu ànd tamit ak le général Mamadou Ndoye bi commandé sapeur pompier fekk fii le gouverneur de la région de Louga ak mbooleem chef de service yi nekk ci gox bi moo xam gendarmerie la commandant légion gendarmerie bi yore diwaan bi di Ndar ak Louga moo xam commissaire de police bi la moo xam ci wàllu hôpital directeur régional de la santé la moo xam directeur hôpital bi la ak mboole seen service su ministère yi bi ñuy ñëw jokkoo nañ ak euh, suñu kilifa di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall muy naqarlu di mettitlu tiis wi dal ci kaw senegal di yëkkati njaalam di ko jottali ñëpp ñi nekk ci biir réew mi waaye tamit di ko jottali ñi nga xamante ni seen mbokk ak seen ay jegeñaale dañ fi bàyyeekoo. di masawu ñi ci am ay gaañu gaañu di ñaan suñu borom mu yëkkati seen bopp mu fëgg seen bopp ñu dellu ci seen ay sago balaa yàgg dara. lii fi xew tey ci suba ci booru 7 heures 40 fële di tolloo ak euh, forage yu jëlër jëlërlu sil gis nañ ni lu mat juróom-ñaar fukki nit. ak juróom benn ñoo nekkoon ci oto bi jóge Cubbalel laaw jëmoon Ndakaaru bi secours yi ñëwee di sapeur pompier yi ànd ak gendarme yi gis nañ ci saasi bi accident bi amee ne am na ñaar fukki nit ak ñaar yu ci ñàkk seen bakken ci saasi ñu gis ni ñeenti xaleel yu tuuti bokk nañ ci ñeneen ñi ci des am ay gaañu gaañu bi ñu leen indee diggante Louga ak Ndar fii ci l'hôpital bi laata ñuy yegsi am na kenn ku ñàkk bakkenam waaye fële ca ndarit am na kenn ku ñàkk bakkenam lim bi tollu ci ñaar fukk ak ñeent ñu am ci wetu limu ñi faatu di ñaar fukk ak ñeent ñu am juróom fukki nit ak ñaar yoo xamante ni dañ ci am ay gaañu gaañu loolu nag dafa laaj ñu taxaw ci tuuti ab diir ngir leeral ni carte grise oto bi mooy këyitu d'identité oto bi bi wane oto bi numéroom ak ñaatal nit la war a yàpp ak ban at lañ ko defar ak bépp xibaar bu soxal oto bi ak dund ak ni mu nekkee di daw gis nañ ni juróom benn fukki nit képp ñoo waroon nekk ci oto bi waaye li ñu gis ci oto bi ci ñi gaañu ak ñi faatu yegg nañ ci juróom ñaar fukk ak juróom benn loolu tubaab di ko wax sur nombre maanaam oto bi defoon na lu ëpp li mu war a yot yàpp loolu nag euh, gisoon nañ ci weeru janvier bi ñu weesu bi accident bi amoon Sakal ak 6 kilo amee premier ministre ci ndigalu président de la république woote woon na am ndaje bu ministère yi ko seq yëpp ñëw teew waaye tamit suñu mbokku transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ñëw teewee ko biñ ci waxtaanee ba noppi gisoon nañ ni am na ñaar fukki dogal ak ñett yu ci waroon soqe ko ngir wàññi accident yi wala sax accident bañatee am moo doon li sababu waxtaan woowu di sababu ndaje boobu biñ ko tàmbalee ak léegi gis nañ ni accident yi am na lu bëree bëri lu ci wàññeeku woon ba tey bi ñuy wax nii ba tey accident bi am nii tey ci suba bokkoon na ci dogal yi ñu jëloon mooy oto yi yàpp nit ñi duñu dawati guddi loolu nag gis nañ ni oto bii tey accidenté bokkul ci oto yi nga xam ni dinañ daw guddi te biñ ko saytoo seet ko gëstu ko gis nañ ni dawul guddi dafa jóge Cubelel Laaw ñëw ba Richard Toll mu fanaan fa xëy suba war a continuer yoonam jëm ci dakaar malheureusement dafa am surnombre te loolu jaaduwul loolu question la boo xamante ni liggéey bi ñi ngi koy def lu mu rafet rafet jur ay résultats am na loo xamante ni des na te war nañ ko continuer te loolu dinañ ko wéyal te suñu mbokku transporteurs yi ak suñu mbokku chauffeurs yi ala kulli haal mënta ñàkk lépp luy war a mën a ñoŋal bakkanu doomu aadama wala yaramam kooku il faut ñu jël ko comme mesure donc 23 mesures yi ñu applique yi euh, tukkee woon ci conseil interministériel bi te premier ministre ak président de la république saxal ko ala kulli haal il faut ñu continuer di ko wéyal. may sant nag bu baax service yi nga xamante ni ci turu président de la république ñoom ñoo gaaw ñëw euh, taxawu ñi amoon ay gaañu gaañu ci accident bi. muy sapeur pompier muy gendarmerie waaye tamit muy service su ministère de la santé rawatina hôpital bi nekk Louga waaye tamit hôpital bi nekk fële ca Ndar may leeral ni minutes yi topp rek ci accident bi minutes yi topp rek ci accident bi dañu déclencé li ñuy wax plan blanc loolu li muy tekki léegi nag. service urgence boobu bi ñu posé question bi am na benn médecin bu posé question nii suñu sañoon service urgence bi ñuy tabax bu bees ñu gën a gaawal liggéey bi gën ko euh, gën a gaaw a yembal ki jiite hôpital bi tontu na ci kilifa yi yor wàllu santé bi tontu na ci entrepreneur bi ñu ci doon liggéeyal xañ na am nañ ci réeroo ak ñoom ba arrêté travaux yi ba résilier contrat bi léegi lancé nañ beneen procédure bu bees boo xam ne dañ ko def ay minilo pour attribuer de nouveau pour joxewaat chantier bi ngir ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi tey booy liggéey ak nit chantier bi doxul ni nga ko bëggee wala mu sooxee soit da nga koy wax gaawal def li ngay def mu jeex nga pare soit nga arrêté liggéey bi fi mu ne nag décision bi nga xamante ni ñoom jot nañ ko jël laata même accident bi di am mooy arrêté nañ li arrêté nañ contrat bi. contrat bi résilier nañ ko et bi ñu ko résilier ba noppi def nañ ko ay minilo dinañ ko attribuer suñ ko attribuer wéyal liggéey bi mais loolu jotewul dara ak accident bi. parce que boo leen posé noonu question bi day mel ni dafa am lëkkale bu am diggante service d'urgence bu bees bu ñuy tabax ak li nga xamante ni moom la ñuy liggéey ñi nekk ci hôpital bi wax naa léegi ci sama njëlbeen wax ni ñoom ñoo wax ni. soxlawuñu ñu jëlee fi kenn di ko yóbbu dakaar wala di ko yóbbu ci beneen gox li muy tekki mooy lépp luy matuwaay état soxlaw ko ngir toppatoo jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo gaañu ñu war leen a faj am na diggante Saint-Louis ak Louga Saint-Louis ak Louga même zone la zone nord la donc bu amee accident dañuy xool ñenn ñi ñu yóbbu leen Saint-Louis ñenn ñi yóbbu leen Louga te wax naa léegi ni am na lu ñu tuddee SAMU muy service d' assistance médicale d' nga xam ni dafay gën a baral liggéey bi gën ko gaawal ci zone nord moom moo couvrir Saint-Louis ak Louga donc bi mbir bi amee ñu déclenché plan blan mobiliser ñëpp ñuy personnel yi mobiliser lépp loo xamante ni matériel la ñi nekk fii ak ndar ni ñoom soxlawuñu ñu jëlee kenn fenn di ko yóbbu feneen hélicoptère u armée pare woon na bu doon soxla nañ yóbbu Dakar wala ñu yóbbu feneen ci réew mi mais jotuñu ko def et scanner bi ngay expliquer tamit du problème boo xamante ni problème bu am incidence la ci prise en charge bi ndaxte ñi aju woon ñu defal leen loolu ci saa si defal nañ leen ko ndar te même avant ñi ngay ngay poser question bi gouverneur sànq ci réunion bi wax na ni et même directeur hôpital bi moo ko wax directeur de cabinet wu ministre de la santé bi ngi fii teew démb jokkoo na ak le gouverneur te boobu problème bi amul wax ko ni ko tubu scanner bi am na problème matériel nag bu ciy dox bu nekk dina am problème muy oto muy scanner muy tele ba ci seen micro yi ak seen caméra yi léeg-léeg moom am problème mais bu dee ci dafa jëm ci wàllu santé lu mu ci gën a gaaw a bar moo gën ba tax na moom xaarul accident di am pour que mu koy waxee bi mu ko yëgee rek daf ko wax directeur cabinet ministre de santé ñu def commande bi muy benn tube boo xam ni dañ ko war a dugal ci scanner bi te loolu balaa yàgg ci biir ayubés bi dina yegg si ñu mën a def liggéey mais loolu amul benn sooxe bu mu indi jëmale ko ci ni ñu war a jëlee en charge les différents patients pour wax ni maa ngi jaajëfal pour daaneel suma kaddu ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci hôpital bi parce que gis nañ seen taxawaay bu mat sëkk gis nañ seen yitte waaye gis nañ yërmande bi ñu tabal ci liggéey bi jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gaañu te wax nañ ni fii ñu toll nii amul lenn lu ñu soxla di ko ni fenn fu jéggi zone nord bi diggante Saint-Louis ak Louga lépp lu ñu soxla am nañ ko te directeur hôpital bi wax nañ ni fi ñu toll nii li mu dépensé gul rek ci li ñuy wax intrant jëm ci médicament wala ci xeetu lu ñuy soxla ngir jàppale ci ñi nga xam ni ñoo gaañu méy na ci vingt millions fi ñuy wax nii actuellement donc il y a par rapport à l'organisation des secours et alhamdoulilah tout se passe bien merci beaucoup ñu delluwaat merci beaucoup voilà ministre ministre maire Moustapha mi ngi noonu ànd ak euh, ki nga ne moom voilà. madame le maire adjointe au maire mi noonu. voilà ñu may gouverneur mi ngi ñëw. voilà. gouverneur mu ngi noonu Antoine mi ngi noonu dañuy léegi ñu ngi évacué ginnaaw bi ñu pare euh, ministre de l'intérieur mi ngi noonu day dem Saint-Louis euh, actuellement direct rek euh, ci malade yi nga xam ne moo am na foofu voilà voilà voilà ngi noonu ministre maire Moustapha ak oustaz Modou Fall ngi noonu macha allah ñu ngi noonu di saafonte ñu noonu di ziar. barkeel macha allah ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk am mbokk ñooñu yal na yàlla xaar leen àjjana ministre Moustapha Diop ñëw na ci heure ñëw na ci temps ndax Adja Thioro Ndiaye Diong adjointe au maire am la.